bëri na ndaw wala mag wala jigéen buy dund ay situation difficile bis bu ne mu jàmbat ko bis bu ne mi ngi woo fu nekk lan moo waral wopp bi wopp bi nag yorin bu yorin boo xam ne du intérêt Sénégal waaye intérêt bitim réew d'abord rusit bi rusit ñoom ñu séddoo ko ñoom ak seen njaboot moo tax ci waroon jot fukk ba tax mënul faj ay soxlaam te loolu bis bu ne ñoo ko te démontré ci li ñuy wax ak li ñuy bind ci téere moo tax visite bi am solo ndax euh, waxtaan yu mel loolu ñun moo ñu taxoon a dugg ci politique wax dëgg yàlla dugguñu woon ci politique pour ay teesal tey bànkoon boo seetee seen wax yépp nag saaga xaste tuumal gi wax ñu dëgg tey ñi askan bu génna ne d'accord ma ngi am nga ne askan bu yëpp ay terroriste lañ loolu ku ñu jiital ci réew war na askan yëpp génn bëri na ñu ne bi génnoon nañu nee nañ yéen ay terroristes ngeen ay puissance occulte cest ay jinne xam nga wala xaw nga la ñoo leen nekkoon ay waxu dof yoo xam ne jox jël daal si saret yoo xam loolu nit ku ñu di France ay manifestation gilets jaunes te Allemagne am na ñuy manifester doyal nañu ci euh, ci état d'urgence ci kii restriction yi mais est-ce que Angela Merkel sañ naa taxaw ne ñii ay terroriste lañ wala ay puissance occulte ñoo ne seen gannaaw ñàkk weeg Sénégalais yi weesuwul loolu weesuwul loolu mais il faut que ñu góorgóorlu ñun ñëpp ba bu ñu divertir Sénégal mu ngi ci guuta mu ngi ci ab kan goo xam li ko ci war a génne du yomb. mais li ñu doon moo toll nii parce que ñaari gor bu ñu toogee di waxtaanee réew mënul nekk waxtaanu soxla soxla waaw nekk waxtaanu bu dal waxtaan wu ku nekk di joxe xalaatam waxtaan wu ku nekk di génne nekk ci dënnam moo tax bi ñu paree ci waxtaan bi ma jàpp ne livre bi ñuy bind le défi économique. dégg wax ju may tiita ci réew mi mooy waxi waa. surtout pour les hommes politiques surtout pour ñi nga xam ne dañu war jël réew mi ëllëg yore ko cette jeunesse dañu soxla perspective jeunesse bi dañu soxla ñu. état lu koy jox xaalis mooy inspecteur de sénégalais dul la ci fekk te ñun ñii dogu nañu ci fekki ko ci li nga xam ne moom la bëgg bañ nañ ko ba tënk ay poñ jox ko ni ko lii mooy li ni yittewoo mu jël ko gàlloo ko ne moom dana ci taxaw dana ci dox kon am nañu yaakaar ci moom ki nga xam ne it moom moo jiite Sénégal ab présentement muy président Macky dal ci réew mi moom la war dama dégg fan yi démb laay wax sa regrettable d'ailleurs mais damay interpeller encore l'état du Sénégal parce que fer régner l'ordre fexe ba dal am ñoo ko warloo